personnellement li may wax nëbbuma ko clip bi dafa am boroom mese ak ñu ci véhiculé dafa am ko moom jëmm ji ñuy wax Tandian kooku moomu message bi ñu waral nag ma lool noonu dama ko teg ci ay conditions yu leer